Moustapha maa ngi lay ziar na nga def. waa ci jàmm. ça va alhamdulilah. ok it ñu ngi sant yàlla. ah sa waay yi tey demoon fële Ayib Daffé demoon na DG ba léegi nii ah sa mi ngi sonné de. graaw naa naa rappelé waat. yow daa mel waa discours discours ñepp am solo waye bi ni mom ma daf ma quoi. ah bi daf ma touché ko sonnerie. no gisee Ayib dafa nak gannaaw bi juge Ousmane euh, Racine Thion mhm. confirmé juge Sabassi mu dem fa di wat ay ficham mu dem ñu ko déjà. waaw xam nga c'est que man dafa am ben affaire bu ci bu a pas mhm. euh, mais. Euh, population sénégalaise bi naan non genre xam nga ñii li ñu def nii xaw xaw moon na sañ nañ ko affaire yooyu man ñoon ñoo ma bett. Mm. cest à man ku taxaw tey jii nii di am lenn benn ñaaw bu la bett bu boo xam ne dafa am bu Macky Sall def mu bett la. Mm. man yow yaa may jaaxal. parce que man Macky Sall xam naa ne maanaam jommul dara. Mm-hmm. c'est donc nit ñi waruñu am lu leen bett. gis nga suba tamit bu fa demaatee bu ñu andiwaatoon beneen juge. Mm-hmm. yàlla bu wàcce woon aaya. ne Ousmane Sonko dañ koy jox parrainage am Ayib Daffé bu demee du dugg c'est que Macky moo pare pour Ousmane Sonko bañ a nekk candidat gars yi foog ñu xam loolu te fii ak euh, ñi ngi koy jàpp si rythme bii coow lay bëri rek mais Ousmane Sonko man doo mën a ku takk ci moom sax dina nekk candidat. Mm-hmm. as yow xalaat nga une seconde rek. Mm-hmm. Macky Sall organiser ay élections yu jaar yoon bàyyi Ousmane Ousmane Sonko bokk gañe ko xalaat nga une seconde. léegi lu waral loolu. parce que xam na ne xam na bu Ousmane Sonko <laughs> bu Ousmane Sonko falo muy moom. di France di yenn homme d'affaires yi nga xamante ne daawuñu woon fay impôt maanaam dëkk bi dina tegu si yoon donc ñoom seeni robine la usmaan Sonko ndara tëj mais da koy jaral lu ne. c'est sénégal Sénégalais yi foog ñu comprendre que ne Sall du may Ousmane Sonko tarafatal ay ni te Ousmane Sonko yàgg na leen wax ne leen man sama candidature. manam ma bok ci ay élections. Mhm. ci population sénégalaise bi la dépendre. donc mom il a compris très tôt que du ci ay affaire de manam justice ay affaire jaarale yoon xam nga yooyu moy tax muy bok non non bu population bëgg Ousmane Sonko bok dina bok su fekkente na population dafa continuer ni ni di def ni di sétane ni coow lay bëri Ousmane Sonko du bok te bu la ci dara as bu nu démé élection yo xamné Ousmane Sonko bokul au premier tour, nous avons gagné. C'est 59% de nous qui Je te jure, je au sérieux. Amor Bamo, nous avons gagné. Mais nous avons gagné au sérieux. C'est 3 millions de parents Je te jure, ce n'est pas anodin. Je le au sérieux. Parce que nous avons gagné pour justifier ces kibi. Nous avons gagné 3 millions de parents. Mhm. Déjà, nous avons gagné. Que tu aies un peu de man man man APR pour man mimi tourer le monde. Mhm. Mimi tasse non.

li ma metti mooy actuellement Macky Sall dafa choisiral gars yi seen combat instant yi waa Pastef ak opposition beeg ñu si bëri ñoom nu ñu rek la ñuy ay Ousmane Sonko ni mu bokkee lay xol instant bi Khalifa Sall ni mu bokkee lay xol kenen ak kenen ni mu bokkee lay xool. xam nga pendant ce temps là mu mu choisiral leen combat bobu non bay len ci ben terrain ñom ñuy dijeent ñom nu ñuy bokkee. Mm. Macky Sall mom mom mi ngi si élection yi mom mom mi ngi xol naka lay lijjantee élection yi ba ki gagné premier tour parce que moment bi ñu nek as waron na fek ñu nek ci ay euh, naka la organiser élection yi dañ ko wara a def bulletin unique te bulletin unique xam nga lool mom pour nga sàcc day metti mhm. dina tax sax ñu économiser xaliss parce que <laughs> duñ fi nek di imprimer ay ay papier yu bari mhm. donc bulletin unique heure bi do na fek ñuy xol naka la ñuy def ba am ben personne neutre bo xamanteni ni moom mooy organiser élection yi c'est mhm. comprendre mais malheureusement ñi ngi nous ay dina bokk duma ma bokk dem na DGE ñu nous ko xam nga caravane bloquer nañ ko affaire yoy doon si yoy la Macky Sall yob mom di mom di ay élection man dara Amadou Ba premier tour sa duma nan lañ fas def non xam nga face à un à un malin xam dem euh, être euh, être intelligent. Mm-hmm. être malin c'est pas la même chose. Mm-hmm. xam Abdou Diouf il était intelligent parce que fexe na ba dëkk bi dem nañ élection gagné nañ ko joxe na la ngay si jàmm ak salaam. Mm-hmm. il a voulu faire le malin mais ba mu xamee ne dëkk bi dafa nar a il moom mu utiliser intelligence am. xam nga il fait le malin parce que être intelligent moi, yow bu nga bëgg def benn affaire nga ne ah lii kat su ko defee dina yakal ki dina gàllankoor ki dina déstabiliser dëkk bi xam nga donc mieux vaut mo bañ ko def loolu moy intelligent mais être malin mom moy li ma bëgg par A ou par B na ab asamaan seeg suuf si laalante sama yon nekk dama koy def moy manam jaay muus. Mhm. Macky Sall nak ci loolu la nekk nit bo xamantene nak day jaay mous celui qui fait le malin il faut faire face avec lui Ousmane Sonko yag na wax waji xamul négociation xamul loi xamul droit xamul négociation rapport de force la xam. Mhm. population bi na leen leer ne. Mhm. ak Amadou Ba bii ñëw ba fi signé ay ay accord mhm. je te jure gis nga buñu taxawul lu ñu wara a ci fulak fayda détermination 2024 Amadou Ba moo nar a nekk président gaay def couvre-feu wàccee homme de tenue ci mbedd bi mu jeex Lool la amoon li ma si wax. Wa wax ci Barthélémy Dias nag moom kaayam bi. Wa bon euh man politiquement mënuma ne d'accord na trop si ni muy doxalee. Mhm. mais gis nga dans la vie nit bu dëgg joté waxal dëgg rek. Mhm. parce parfois dama gis yene nit ñi si si si par rapport au problème mu bi ñu nan ay yàlla waaw yàlla nañ nangu sa mairie yàlla nañ ko ki non yow restel cohérent si li nga wax te bo boo bëggee resté cohérent fo ngay wax dëgg. Mhm. Barthélémy Dias ñun ñëpp xam nañ ne dossier bi, dossier politique la. te Barthélémy Dias moo am raison sur toute la ligne ñëpp xam nañ ne dañ ko tooñ. Mm-hmm. parce que dañ ko fekk mairie wam de un de deux gars yi bañ defee experts yi xool nañ ba xam ne bal bi rey waa ji jugewul si si euh, arme bi Barthélemy Dias yor mm-hmm. Barthélemy Dias arme bi mu yor bal boobu du ci dem mm-hmm. buñ ko gis nga Macky ñëw na fi fekk ba seen kër foofu setal ko fa tey jii Aïssata Tall Sall mii dem fari ji fële yàgg na fi wax di setal Barthélemy Dias. moo nekkoon avocat am sax. moo nekkoon avocat am donc ñoom bu fekkente ne nag seen waxu démb ak seen waxu tey dafa nar a waroo loolu ñoom la mais nit bu am ay valeur xam dëgg même boo àndul ak Barthélemy Dias taxawal nga ne kat Barthélemy Dias mii dañ kaa tooñ dañ kaa bëgg jaay doole. Mm-hmm. waaw loolu laa si xam après nag Barth moom parfois si ay propos am keroog je trouve que bi muy def conférence de presse am am na noo xamante ne bon mënoon na ko bañ a waxee parce que yow xalifa mi ngi yaakaar si yow pour ce.

loolu daal laa am lu ma ko ci wax mais sinon daal Bart moo nekk dëgg moo nekk si dëgg gars yi nañ bàyyi jàmbur. waaw jaajëf kon. ok jaajëf.